بوكي جلتي جناب سنتي سنبروم سبحانه وتعالى جلتي ننتم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي بالحق نيب تيمالو حق نيب يلا يلا بولي تكر تاي دنجي فاتلكو فاتلكو نك بو فكي jëmmi nit lañuy fàttaliku ñaar lay doon kii daa baaxoon lool kenn ki kàccoore woon lool ñaar ñu desu ci fàtte kenn ci jamono buñ cay fàttaliku ku baaxoon lool am na nattukaay yu ñu ko war a fàttalikoo bokk yi lim nañu ba atum ren bokk ci ñu ne téeméeri at jàll na bokk yi téeméeri at bala ñoo dem fenn nañ xam ne yées na ci li fi kaw suuf li suuf waroon a am ci kaw suuf li fi nit ñi war a am ci kaw suuf kon gën nañoo jege yowmal xiyaama doxub téeméeri at dox nañ téeméeri at jëm yowmal xiyaama daal téeméeri at yooyu nag bokk yi kañ cay tànn tey di ko fàttaliku ba waral mbooloo jóge fu nekk di ñëw kenn du ko fàtte waaye xam ngeen dundam gépp buñ ko tënkee lu waay gàtt gàtt xel man koo xam mooy yowmal xiyaama rek la ca doon waajal ci pas-pas ci wax ak ci jëf weesu wut di xalaat tiit mën na ca yowmal xiyaama ak yam àndal yépp dajag dajaga peese jëf ya kenn ku nekk ñu natal natal la say jëf wan la kër ga ngay dugg gannaaw bu ñu jegee siraat téeméeri at at yam fa am ci kaw suuf mutu téeméer waaye kër kër ja weesu wutoon rek xalaat bis boobee ak waajal ko moom bokk yi bis boobu bés bu mat a baal xel la bu ma ko soñoon wax sa dem nag moom rek moo ko mat bis boo fi gis ñu di ko siintu am na ñu yaakaar ne danañ ko fekke am ñu bari ñu ko fekk jàllaat di nekkat beneen waye booba ñu jëkk a dem nangami junni at ca gannaaw ak nangami weer ci gannaaw ak nangami fan ñom ñepp da ngay taxaw di négante fenn fo xamne ne ñi ñepp dañ fay fekk bes ñu andono ñun ñepp wuy jéendoo ben yoon ay turam ku dem ci alxuraan dang ko ci fekk mu ne gañ am ñu ci wàññi lu mat ñaar fukk ak juroom yetti tur yo xamne ben boku tek sa morom nam tuddu ak la tax ñu tuddiko ko bokkut ak suñu bis yi de yàlla neena ci alquran bu ngeen ko ko non nat ci seeni bis yagge na juróom fukki junniy at miqdaruhu 50 alf sana kon bok bis bu yàgg lay doon ndax lépp lépp ci lay lijeenti ko amna fuñ ko tudde yowmal qiyamah ñu bari mom lañ ko xamee mom la alquran di wax yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin bis dana ñëw ñëpp ne fo jot ci seeni bammel daje ji fenn fañi ñuy daje yàlla mo leen fa soxla mo leen fa wo kenn du ko wuté matna wajal de baatub yawmul qiyamah wala yawmul qiyamah ku dem ci alquran lu mu néew néew mën na fa juróom-ñaar fukki yoon te benn bu ci nekk ak la cay tege waaye dañ am na saar boo xam ne ci alxuraan mo lañ ko tudd suratul xiyaama la aqsim bi nafsi bi yawmal xiyaama wala aqsim bi nafsi lawaama ku ko ci jàng ku ko jàng it da nga ci dem ba àgg ci yawma idin yunabawul insaanu yawma idin bi ma qaddama wa axar balil insaanu ala nafsihi basira lu mu mas a def fam ko tàmbalee ak li mu mujj def lépp danaan tell fi kanamam ñëpp di ko séen ñu ne ko iqra kitabak kafa bi nafsika yawma alayka hasiba soxla wu comptable tay kenn ku ne doon sa comptable bop te su nit ki bëggee reus ci biir wax ji bo le ci lu ci bokkut ci riyay lànk al yawma اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بابا بس réy bu tiis la waaye am na fu mu tudd ci alquran tam al axir al yawm yawmul axir yuminuuna billahi wal yawmil axir am nañu ne la tax ñu tudde ko ko moom mooy amaatul beneen bis bu topp ci ginnaawam lépp kere lay yam da ngay dégg ku fi bàyyi ko ñu ne tey lañu yemale lépp déedéet jeexagut des na lu tey nit ñi di xëy si di kontu si lu tey ñu saam alalam séddale ko du tee jamono du wéy ñeneen ne fi waaye ci bis booba képp ca lay yam amatul jàll amul prolongation amul prolongé jaroon na nag bàyyi àdduna ak li ci biiram lépp di ko xalaat waaye am na bu tudd al axira wa bil axirati hum yuqinuun mooy kër ga ñuy joxañ nit mu defa dëkk it du fa toxoo fa lay sax ba faw am nañu ko si sax daarul aaxira wa inna daaral aaxirata hiya al qaraar aw kama qaal loolu ku dem ci alxuraan ëpp na ci téeméer yoon a fanweer moom ñaari baat yooyu waaye am na bu tudd tam saa بولا مش الخوان دنجة فك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بسبة ساعة تخو لو صح من ننكو بساعة تخو إلا أبنا نفي بساعة تخو موم لا تخني في بلكو كونين داي بيت نيب يونت بي صلى الله نيت دنا شيك ام نيمو بومي ميتر ناكو ميتر نياتا مو ديكو ناتال رك مو تاخو سي nit dana dem ba sóor la muy togg bala moo yàq mu xew ci diggante bi suñu borom nee ci alxuraan nit dana ca tiit doy na sëkk tiitaay nga jigéen joo xam ne day am doom te am joom doomam jotagut wala mu fab doom jam doon nàmpal sànni ndax tiit ak jigéen ni mu bëggee doomam ju ndaw yawma tadhalu kullu murdaatin amma ardaat wa tadaau kullu daati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukara wa ma hum bi ولكن عذاب الله شديد <clears throat> ساعة موم أبنا فنوري أولا جيروم في القرآن ولا مرنا كسك بوتينك أغلى شيء تجي تمت ويتودنا واقعة تودنا الحق واقعة نك بوي وخي سجامة نجنة لي واقعة تسوين جامعة كون لي نيولا لدب لدب لي نيولا لدب موكو تأدنا تأكسو waaye tudd na alxaqa mooy foo xam ne fii ku yeyoo mën ku layoo mënees na laa yey waaye ku yeyoo mën ngaa lay ku lay mën ngaa yeyoo mën ngaa lay ba yey waaye li ngay wax lépp dëgg lay doon de bokkut ak lay yoo xam ne dina la neel nangam fii comme niñ koy defee suñu jamono fa la lépp di leere lu way dencoon dana ne fàng nga ci biti am na asaaxa فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء مولم كوم خامون رك دا نجيما تاغوك موم نختيت نانتلوما لا لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغني واي تودنا يتام يينن تور يو بري الازفه الطامه الغاشيه القارعه البعث الغروج الفصل الحساب الجمع الوعيد الدين الطلاق التناد الحسرة يجب لمي تكتلي أك التغابن أك الخلود يوم الخلود لمي تكتلي رك موي مقا ريا يبسب أك بن بسبو خمنا تلني أتي لكو تعمليك سوى مام آدم با سوى موجود جمال كن بار كن كن كن كن يوو كم وقت ñi peesal ko mu dem ñu nek ci top ba ba ñi mat lolu mën nañu jaaxal waaye jaaxalul yalla lu yomb ci mom la sa yajcalu bada usrin yusra lu jafe ci ñu nak bañ mën defé na muntu soti lu yomb fa yalla la yi kiñ ci tànn tey di ko tax nit ñi joggé dekk ak aw turam siwu na lool ba weesu na fàtte waaye wax naa ne dundugam dundam gépp bis boobu la doon waajal dundam gépp yim fi bàyyi gannaawam it ña ko war a toppatoo toppatoo ko ba muy dox na mu war a doxe ci lu baax it lu ko fay fekk la ci jublu woon ndax yonent bi sallallahu alayhi moo ne ku fi bàyyeekoo lépp may dagg ba mu des yent lim na ca bàyyi fi ñu koy ñaanal gannaaw di def yu baax di ku yéene gannaaw xam-xam bu mu fi bàyyi ñu di ko jariñoo wala njaboot gu mu teg ci awyoon te moom jaaraam wàccoon na ca nag bokk yi loo gis ci àdduna rek fàttaliku la nañ fàttaliku téeméeri at yi nga xam ne war nañu ko gannaaw boobaak léegi gisatuñ ko. nuñ def ak julli juróom noonu ak ko fonkoon dem na ba défier autorité bi autorité bi ci jamono yooyu mooy kan ñiñ ne woon ni ñoo yor Sénégal yi waxtu julli la mu doon julli fekk na ko fa mu julli ko fa xam na suuf sépp yàllaa ko moom julli amul fenn fu ñu ko mënta defe ci kaw suuf si kon dara jël lu koon bañ ko fa julli xamul ku fa nekkoon yàlla rek la ko doon seeda nee nañu demoon na ba waxtu julli jot ñu xatal ko mu julli ci ndox mi te ku ne xam ne ni fii ñu dëkk bari na ci ñoo xam ne bu yàggutoo lañ tàmbalee gisul géej dex gu mag sax dawuñ ko gis ku ma sa gis dex ñaari ndar nga dem wala boog Saalum lu ko jaraloon julli sëñ ma bañ njaay nee na ba ñuy sañ ci mbakke baari defar nañ kër ga ba def ca lañ ca man a def lépp mu ñëw ne ana jàkka ja jàkka ju lépp tax a jóg ñooy defaguñ defaraguñ ko mooy dindi leen li ngeen defar lépp ba defar jàkka ji ba noppi yàlla huwal aaxiru huwal awwal wal aaxiru ñun nuñ def ak jàkka yi kan ci ñun moo mën a wàññi ne weer wii lépp ci laa ko jullee xanaa duñ ko fàttaliku ci loolu ak fonkam julli romb na aw nit ñuy sàkkat sëñ mu lim Jóob Dagana bind na ko ñu ne fu ngeen nekk lu ngeen nekkoon ba julliwu julliwu leen da ngeen julliwu te ñu ne dañu nekk ba àggal li mooy dindi leen ba mu set ñu tepp lépp am na ñoo xam dañ naan fii lañ tolloo woon déedéet dañuy dindi leen lépp ñu teppi lépp mi ngi taxaw ku xamoon war téef la ne ay ca ñeneen coow dem julli ci bu ngeen ñëwee lu ngeen bëgg a def ngeen def ko kon lam leen bëgg a jàngal mooy julli moom ndigalul suñu borooma lañ koy defal moom moom lañuy seet bànnee te la ko gënal mooy ñu dem julli ci ba noppi moo ne ak fàttalikoom gi ci gën a fës ci réew mi moo jaaroon fii ay jàkk nga fay seen ñun lu dafa waxtu juróom bari na ci jàkk yoo xam ne suñ Sidi Moxtaar waxoon na ko fi bari na loolu waaye foofu itam yént sàppee du fees xanaa ñun amuñ lu ñuy fàttaliku ci moom kon moo ne tàllaloon na ab kaas ñii ne maam Cerno la waaye moom ci boppam def na ko moom kaasub ataaya kaasub ataaya lu tax mu tàllal ko ko da ko ne loolu tey jàpp daa gis muy tiim mu ne ko daa amum neewu mu ne ko neewu fu muy ne mu ne ci kaw yaram wi ba mu ko koy laaj moo ko gën a xam neewu kuy nit xam ko ba mu tiimee ba julli ba noppi ñi attaaye mu tàllal ko kaasu mu jël ko ni fu roox naan mu ne ko danga ci tappale nga nekk fa fabe ndox mu tàng di ko def ci sa yaram sa biir sa biir biir bii mu ciy dugg di dem te mënoo fa ndox mu se def ci kaw yaram bi te dem jàpp ci julli ci xanaa kon amuñ lan lu ñu fàttaliku ci moom xanaa julli moom moo ci gën a jege nit ñi moo ne bi ñu ko indee Touba bis ni tey di def ci moom la suñu borom santaane si jullit ku dem ci Irwa Nadim da nga ko ci fekk ba ñu ko defaree ba noppi suñu mujj lim Jóob Dagana moo ko bind bokk na ñu duggoon ci biir kan ma bañ àggee ci war a def jal boobu ñu defal ab jullit euh, suñ mbokk ma mu jóge woon Mauritanie daa nodd fekk fajara jot loolu mën a tënk lépp ñu ne fa ñukk lañ doon def kenn du ko fa ne ñukk moom de waaye lañ doon def lañ fa ne ñukk dem suñ mbakke bu sa jiite ñu julli ba sëlmal def la ñuy def lépp la tax lenn ci waa Touba ña fa dëkkoon ak néew yëg ko siin fa mbooloo ma kenn ku ne daa teelu la doon def lépp gën ginnaaw julli suba mu def ko ba noppi sëñ Cerno Birahim maam Cerno ne sëñ Mbàkke noonu la de moo ne woon de lu ngeen di def bu leen si julli fekkee nañ ko bàyyi te dem julli ci lam leen di jege jege lañ koy bëgg bëgg la muy am am njariñ texut ñu jànn xekkara ba fàtte waxtu waxam ja ci kaw ndigal lu mu leen joxoñ suñu borom subhanahu wa taala kon amul lu ñu fàttaliku ci moom julli ci gën a jege yu bari la waaye defar gam doon defar nit ba ku fa toog doo fa bëgg a jóge ana fu mu nekk léegi ana ku ko taxawee xanaa duñ ko ci fàttaliku buñ joxoñ kenn nag ne moo ko war a def kenn ku nekk na xool kër gam dëkk ak ñam jaboote ba xam lu mu ca def am na lu ñu def suñ digganteeg moom fàttaliku ko ci xam-xam ñaata téere la bind ci ñàkk jotam ci ñàkk jotam ci kaw ñàkk jotam yoo xam ne seeni njariñ ba fi toll nii day raw am na ci yoo xam ne boo ko xoolee dangay ngay defee ne tey jii la moo taxoon may wax kon ay waaraamam mi ngi ne wét ci mbooroom lislaam ba faaw waaye ma fàttali ne dundam nga lépp waajal yowmal xiyaamat rekk ko taxoon a jóg jëmm la woon joo xam ne ji xamutoon raay raay gannaaw raayalante gannaaw bi xew léegi suñu jamono loolu war na ko fàttali ko ci moom jël ko muy ay jikko kenn ku nekk di xool la neex diw ñoom rek mu di ko wax musu koo dal musu koo dund Serigne Cheikh Sarr moom Serigne Mbaye Sarr nee na ñu bari dégg na ko am na bis muy waxtaan ba wàññi leen tib yi boo dem gis bu ko dañ ca fekk له خطاب داعيا بما يحب ماضيا وقاد لاغراضيا زادا لدار الكرم من واني لن تبي خمنا كوي دم دي لك ويخوم لك دي دم شيخ سار ني امنا كو جوب نكو ماغي ني دي مان سما بير ني نا نياد مونكو باي سما واخ نغا ديما دوغالي مان سونا نياد نياد لوما مان man amee saa fal naf si kon xamutoon ragal gannaaw kenn kenn ku ci nekk bu wax jotee lam lay wax la lay wax am na koo xam ne kii mbokk mu jege la dañ ko fa yóbbu di ko wax askan bi mbokk mu déglu ko ko ba xam àggal mu ne ku ko mën a jur na jaamu ci yàlla ma ne ku ko mën a jur na jaamu ci yàlla mbokk yi mel nii mi ngi nag gàññ ci mbindam mi xanaa fàttali jëm ca loola am dañ koy jàng di jàll rek ak a xew ci jamono kenn ku ci nekk la nga bëgg a do la nga bëgg dégg dong lañ lay wax ba tax na yu baree bari doo ko yëg doo ko xam te moo ne war waru ma nga fa toog di xaar kon boog nañ sàmmoonte ci bu ñuy waxtaan buñuy ñuy fàttalante ci nituk yàlla ko xamne dundum gep gépp al àllaaxiraa taxone amu soxla ci aduna ñu ci bàyyi xel suñuy no ndax no ko ci dem ci wat di ci bàyyi xel suñuy làmmiñ làmmiñ bo xasse ba wax moomatoo ko mu mo na li anna kull nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali noo gu bàyyi ci nit du wat mukk waroon na caa mën a wax leneen wala mu def ca leneen lu koy jariñ ëllëg ba mu des ca wax ay kasaw kasaw kese kese kese kese kese kese kon boog suy mata téeméer li ëpp ñun du ko fekke waaye nañ ko ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla defal euh, li ko mën a fàttali ko bari julli waaw daa kon koor ge ba nga xamne bu koor gi jup lo wax mu ne te luñu ko ndax gan gi dëgg ma bu koor gi xasse ba dugg ci lo ko wax rek dana ko fajj royé ko bu de lu nit di joxe ci loxom bu de lo xam yalla lañ ko ñaan mu ñaanal la ko yalla am nañu ko dan dak wéru koor ak gam diko di soxla soxla suñ ko digg rek bu dee lu nit di faj léegi léegi dana ko faj waaye wares na ko fàttaliku itam ci nangoo liggéey bañ a gën a bañ a gëm baat bi ñuy wax toog rek muy dox musta toog musta nopp li ëpp ci ak dundam xamut fu muy yendu xamut fu muy fanaan ndax ci ay yoxu la nekkoon musta ne fu ngeen ma jëmee musta jàmbat lele nga dekk ne man nangam ci gisuma ci sama bop musu koo wax te bu ko don wax yalla dong la koy wax te mok yalla waye musa jambat nit degg ko beug na wala bañ na déedéet fi ne fa lañ ko yobbu won kuñ fa yobbu ci jamono ji ñu tol na la fa cundum la ci bi li ngay jëk xalaat moy ana fu penk fete wala sawu fu mu te bobu na lëndëm gënoon na xam waaye du ñu waxtaanee mukk lan moo ko jaraloon coono boobu dañuy fexe ba nga yërëm ko te bokk yi koo yërëm du too ko mën a roy ndax yaa ko tane dañ ña ko daan waxtaan dañ ko daan kañ bëgg ku nekk bëgg a mel ni moom lam am nga bëgg nga bëgg am sa wàllu bopp tudd naa tarbiya tudd naa xam-xam am na ñu fi bàyyi woon liggéey nañ ci lu bari waaye léeg-léeg sottandiku day mujj di su di ruus ndànk ndànk ndànk ndànk yàlla ñu ci yàlla musal kon kenn ku ci nekk bu mu jéem a joxoñ kenn nan kii moo def lu mu wutoon def wala doon waroon naa def lu mu lu mu defut waaye kenn ku ci nekk boo fekkee moom ngay tuddoo yow ak noo ca mën a demee fexeel ba sag njaboot def lu ëpp la nga doon def yow ndax bu fekkee dañ koo téye foofu mu téye téyewul ñoo dolli na ci junni doyul la fi waajuram bàyyi woon dolli na ci ab junni doy daf ko war a jéem a dolli ay millions ndax wajur nañ ko jàppoon te moom kenn jàpp kenn musu ko jàpp kenn musu ko jéem jàpp ndax kenn mënu ko woon a jàpp gannaaw sëriñ moom jàpp kenn yóbbu ko moom ay ru ay ay bakkan yu bari ngay tëral doro ba ci suñ jamono ji kon boog ku dem bis ni tey na tàmbalee fàttaliku sëriñ bi ci nu mu fonke woon julli moom mu fas yéene fu jàkk nekk mu di fa jullee ji fas yéene weeru koor wu ñëw mu woor ko fas yéene lu ko way diis ci soxla bu nit mënee faj mu fajal la ko bu ko mënee su ko mënul mu ñaan la ko yàlla fexe ba génn ci raggalante gannaaw ko war a wax dëgg su la ko laajee wax ko ko fi may jeexale daa xew rek suñ jamono baat bu ñuy wax naan ni ko sëriñ bi bëggee nañ ko def ni ko sëriñ bi bëggee bu dee sëriñ boo xam ne am na juróom-ñeenti fukki at ak juróom-ñett di digle suñ jamono jii mën naa bañ a xam li xew ci mbedd mi mën naa bañ a xam li nit ñi di xalaate ak fi ñuy xalaate ak liñ xam lépp su boobaa ku mu woo na la defal nangam jaanam wàcc na yaay seet nam baaxe nam na muy baaxee dong la ko sëriñ bi bëgg loolu tam lu ma ta bàyyi xel la moom la ko mbooloo ma doon nangul nangul ak lañ ko doon bëgg bëgg ak lañ gëm gëm gëm fu mu leen joxoon ñu jëm fa it teewul daana wax lu ngeen ci xam foofu lay jeexale ku nangu woon ku diisoo ak moom la doon na joxe soxna ñu ne ko ah nangam ak nangam mu ne kon baax na damaa defoon ku dem sawar amul sikk rek ku jaar yoonu jëm aljana amul sikk laa yaakaaroon rek ñu ne ko loolu nga yaakaar da mooy li xaqul yaqin la am koo xam ne dane nañ ko jox kooku dañoo bëggoon mu kooku da ko bëggoon a jox moom kooku dañoo bëggoon mu jox ko mu ne déedéet ñu wax ca lu nekk mu ne déedéet loolu lam ci lañ ciy dégg mooy ana fuñ gisee koo xam ne day wax ñu naan déedéet ñuy waxaat ak koo xam ne daanaka bëgg naa ñu doo ko fi defe loolu war nañ ca fàttaliku sëñ bi nangoo diisoo kenn ku nekk bu demee fa mu dëkk mu ji ca ñam jaboote ndax dañ daan wax bu njëkk mag dana toog ci suuf di séen loo xam ne gone gi yéeg du ko séen waaye jamono ji ñu toll gone dana séen loo xam ne mag du ko séen ndax mag demut dikku lu ko mataroye la fi may jeexale nag ci rag ñàkk rek bañ ragalante gannaaw gi nit jóge na weti kajoor bëgg lu ko neex moom bëgg lu neex sëriñ bi mu jàmmante ak moom ni ñuy def rek ne sëriñ bi nga def nag mu ne ko ni ma def day mooy lépp lu yàlla tere ma bàyyi ko lépp lu yàlla digle ma ne tax lu sama yow nekkul ma maandu ca ca laa ne xanaa bu amoon am xel dana xam ne kii kat bokkut ak kam bàyyi woon biig ca ngoor na nga def rek maa ngi fi ci suñu jamono mooy tontoom ndeke du tontoom ana sa waa kër mu ne ko sama waa kër ngay laaj jote woog ñoom dara ba leen laaj laa taqrabu zina innahu kaana faaxisatan wa saa sabila ndekete ana waa kër gi di laaj par kenn du aw yoon maa yaa ngi ci jàmm mu ne ko xam nga luy nekk ci jàmm mu ne ko déedéet mënu ko sax ci ndigal bàyyi tere ku ko def yaa ngi ci jàmm ak xabar lu ñu mën a fàttaliku ci moom Cerno ga nuyu na la mu ne ko man ci mu ne ko sëñ Ibra Faati ndax dama jóge Kajoor mu ne ko moo la ne boo demee nga nuyul ma ko mu ne ah, déedéet nag dama fa jóge rekk de mu ne ko bàyyi leen fenn leen ko woyofal lool tam diis ak bari lu ñu a fàttaliku ci moom daw ragal kenn gannaaw ñenn nit joxal kii loxo ne ko baal ma jéggal ma kooku ne ko su ma ko def dem sawara ma ko gënal ko foofu nga tudd boo demee yaa ko xale xam nga ne ba nga tàmbalee doonee mukallaf ba fii nga nekk defoo fi lu la fa dem def ko ko fi de loolu xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la tekki kenn mënut a dem àjjana si jëfam ñu ne ko ba ci jëw mi mën a ba ci man mii fa nga yaakaar ne fa nga jëm de bul yaakaar mu ko defee ko mu def yëpp ba nga juddoo léegi juddoo léegi moom moo gën a yàgg mu ne ko kon boog am maa ngi lu mu ne ko déedéet demal ba sa xol atam ko la ikraha fi diin yàlla noonu yàlla defal dëgg topp te mosuñu seetaan nekk bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin waaye nag